état senegal ngir nag jox Macky Sall lu toll ci cent quatre-vingt-six milliards waaye nag cent quatre-vingt-six milliards yooyu nga xam ne Macky Sall daf ko daal di lépp Ousmane Sonko nee na lébu ko nag ngir tabax ci ay école waaye tamit Macky Sall lébu ko ngir tabax ci ay hôpitaux Macky Sall lébu ko ngir nag jàppale ci xale yi nga xam ne amuñu liggéey Macky Sall lébu ko ngir nag dugal ko ci lu jëm ci wàllum mbay mi Macky Sall lébu ko ngir nag dugal ko ci lu jëm ci wàllum sàmm gi Macky Sall lébu ko ngir nag dugal ko ci lu jëm ci wàllum napp gi maanaam ci gàttal Macky Sall lébu ko ngir lu jëm ci wàllum suqali li nga xam ne mooy secteur primaire bi nag Macky Sall daf koo daal di lepp ngir nag jënd ci ay arme te arme yi nga xam ne moom la ci Macky Sall jënd ngir waaja li nga xam ne mooy troisième candidature xam ne képp koo xam ne jóg nga ñu daal lay réprimer maanaam ñu daal lay dóora loolee moo tax Macky Sall jëlu toll ci cent quatre vingt jënd ci ay arme ngir dal ci kaw askanu Sénégal du samay kaddu damay nettale kaddu yi Ousmane Sonko la nee nag li nga xam ne moo gën a doy waar ci mbir mi Abdoulaye Daouda Diallo mi jëm na ci wàllum exonération fiscale maanaam ci boppam famille bii nga xam ne ñoo garanti état bu Sénégal 196 milliards ñoom facture TVA ñu ko fay ci Sénégal waaye tamit li nga xam ne moo gën a doy waat ci mbir mi ginnaaw bi ñu garante état bu Sénégal jox nañu leen ab immeuble immeuble bi nga xam ne fa o haut commandant de la gendarmerie nekkoon jox nañu ko famille président waaye tamit jox nañ ko tamit lu toll si juróomi immeuble yeneen juróomi immeuble yoo xam ne maanaam toll na ci 4722 mètres carrés yéen a kaay gi di Vox Populi moom jiitul Pastef di Ousmane ko na nag am na ay ministre ay civil yoo xam ne dañuy làqatu ci lu jëm ci wàllum secret défense ci lu jëm ci wàllum jëndum arme ngir nag def ci ay tooxi doona ay musiba ay ndëngate maanaam bëgg see profité nag làqatu ci nag ngir nag mën a am ay milliards mbir mi du militaire yi waaye civil yi ñoom seen bopp ñooy làqatu ci lu jëm ci wàllum jëndum arme waaw xaw ma secret défense xaw la nag la na ngir nag profité man see jël ay milliards yéen kay gi di Sud Quotidien moom jiitul Pastef nee na nag na leer ci bopp askanu seen suuf si ñoo ngi koy pasar pasare ngi koy saax-saaxee maanaam ci biir centre ville la yéen a kaay gii di 24 heures Ousmane Sonko nag nee na yàggatul dara centre ville moom maanaam état Sénégal doo dafa desee di suuf ndax nag suuf sépp Macky Sall jël na ko nag daal di koy joxe te li nga xam ne moom la loi wax maanaam yoon li mu wax képp koo xam ne yaa ngi jël loo xam ne moomeelu askan wi la da war a jaar fi nga xam ne mooy assemblée nationale la yéen a kaay gii ko di jee xëy diñu xibaar naan ñu Serigne ba wuti ay a kaay gii di na Serigne Bassirou Gueye kay ñaari plainte la ko Ousmane Sonko daal di plainte mu koy toppee nag mooy lu jëm ci wàllu modifier li nga xam ne mooy procès verbaux yu gendarmerie yi yéen a kaay gi dala ko di jee ñu xëy fekk fa Mbaye Ndiaye bu APR nee na Macky Sall mooy seen candidat moom bay Ndiaye nee na nag lii obligation la obligation la te ki nga xam ne mooy Macky Sall dafa war a déglu parti bii di APR te ba pare tamit tënku ci dogal bi nga xam ne moom la parti bi di jël moom Mbaye Ndiaye ci yéen a kaay gi dala ko di jee nee na ñoom ñi xam ne ñooy waa APR ak maanaam amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan X Macky sal mooy seen candidat 2024 ba boobaa yéen kaay xëy di ñu xibaar naan ñu Pape Alé Niang bi nga xam ne yóbbu nañ ko kaso dañu koo transféré daal ko yóbbu ca kaso bu Sébikotane loole nag ay avocat am naqaru nañ ko bu baax a baax Ousmane Sonko di woote ay manifestation ngir nag ñu daal ki nga xam ne mooy Pape Alé Niang yéen kaay gi de las xëy di ñu xibaar naan kuréel gi nga xam ne moo ëmb tas ko do xabaar ñoom nag ñaawlu nañ a baax maanaam comportement bu procureur de la République ci ba pare tamit tas yi ñoom ñoo ngi xam ne mooy sans frontière ak ligue sénégalaise des droits ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax jàpp nga xam ne jàpp nañ ko pabaale ñaar yéen i kaay gii di Vox Populi nee na journalistes yi ak techniciens des ñoom nag danañu wàcc ci mbett mi fukki fan ak juróom ci weeru novembre yéen i kaay gii di Rewmi Quotidien Assane Samb xëy jël xalima ma nee jëm ci wàllum code pénal Sénégal ak code procédure pénale dañu koo war xoolaat te nag lu jëm ci article 80 Macky Sall jënd la oto yoo xam ne mën nañu koo xayma ci soixante-quinze millions oto yu bakkane bakkane moom la Macky Sall jëndal ñi nga xam ne nag ñooy ministres yi waaye marché boobee kan moo ko gagné si yan condition nag la ñu joxee marché boobee loolee ay laaj la yoo xam ne journal bi di 24 heures moo xëy di ko waaye nag journal bi di 24 heures ñoom nag jokkoo nañu ak ay jaaykatu oto ci Sénégal waaye nag ñoom nee na ko jëmale ko ca wàll woowu yéen a Diass mbir ma fa xewoon ba tax ñu jàpp garde rapprochée yu Ousmane Sonko am na benn militant APR bu tudd Omar Dione kookee tamit jamono ji teg nañu ko loxo gendarmerie bu Saly moo ko teg loxo rakku Fatou Dione mi politique la te bokk APR ndax nag nee nañu Omar Dione mii moom ci boppam moo sooki mbir mi moo organisé song bi nga xam ne song nañu ko cortège Ousmane Sonko ba giiraawaali ga am yéen a kaay mi ko di jeex xëy duñu xibaar nañu lool am Sénégal fixé loole moo tax béykat yi ñoom jamono ji monde rural bi mer nañu ba mara di tale ndax ñoom nee nañu loole mënuñu koo nangu tey ba pare mënuñu koo dégg ndax nag li nga xam ne mooy engrais bi ren ji dafa cher ba mara di tale la jiw wi seer te nag li nga xam ne mooy mbéy mi baaxul loole nag moo tax ñoom Adja Ndiouk ci yéen kaay gi di Rewmi ñoom naqarlu nañ te ba pare nag ñoom nee nañu ñoge gi di sunu ci ki nga xam